tudd Aboubacar di jàngee fii ci daara Sëriñ Omar Tandiang mu nekk ci Medina Tandiang Oustaz Ndiaga Seck nag moo ñu yor ci daara yi maa ngi leen di fas yéene taril sooratul sooratul sajda أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الغرس ثم استوى على الغرس ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسلهم من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفح فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم yàlla mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyoo nag ci dëkk bu mag bi ci penc mu mag mi dëkk bi di njaareem ci penc mu tedd mi penc mi nga xam ne boroom penc mi mooy kan mooy alaaji Mbacké Tandian yàlla ñu yàlla fayal ñu ko fayal ñu njabootam yi fayal ñu sëriñ aji Mohammed mu baax ma waaye fayal ñu alaaji Modou Tandian doomam ju baax waaye nag suñu ñëwee fii a ku dugg ci penc mi da xam ne boroom penc mi liggéeyal na yàlla ba yàlla fay ko yëngoom dalam lépp alquran al karim la woon moo tax tey daara jaa ngi gone yaa ngi nii ñu jàkkaar lool di daara ji waaye jumaam jaa ngi nii yàlla yàlla la yàggal fi sëriñ Omar Tandian yàggal fi Baye Mbacke Tandian waaye nag yàggal fi nag ah sëtëm ñu baax bii ma jàkkaar lool tey di sëriñ Ababacar Tandian sëriñ Ababacar Tandian man mu sëriñ Mouhamed Tandia sëriñ Mouhamed Tandia man mu Alaaji Moodu Mbak Tandia waaye kan nag mooy maamam nag kooku nag mooy maam jooju nga xam ne wax nañ ko waxati ko fu mu mos a dem la mu fa wuti mooy fexe ba nu dugg ci lislaam bu nu duggee ci lislaam mu jàll feneen kooku da doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye tey rasulullahi fay na ko ndax penc mii sëtam bi sanc aji Mouhamed Tandia nekk fi ak rakam ju baax ji nga xam ne mooy sëriñ Omar Tandiang njaboot gi ak tey jii nag sëtam bii ñëw tey waaye penc bi nu mu tudd nag ah Medinatu Rasul Madinatu Rasul roy nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa mu tëdd ca Madinatu Munawwara moo tax na tey suñu ñëwee jàkkaarloog imaam mbaay mii nga xam ne tey jii nag mooy imaamu Madinatu Rasul di ko nuyu di ko ndokkeel waaye nag tey ci lu ñu jëm nag ak ci kan la ñu jëm nag ah mooy sëñ Ababacar Tandiang mu baax mii nga xam ne ah li mu def war na koo def ndax ku ne xam na ne waajuram yi bi muy sanc fii fekk na booba gënee gudd àdduna waaye mu gane fi àdduna jàng fi wëlbati ko nag donn ci maamam loo xamante ne bii loolu la maamam daan def ndax maamam kat ku ko xam xam alaaji Mbàkke Tànjang wala nga xam alaaji Moodu Tànjang wala nga xam aji Mohamed Tànjang xam nga ko nag ci nag ki nga xam ne moo doon ñaanal buur yi di ñaanal nag sëriñ si waaye nag di ñaanal réew mi nga xam ne lu waaye mos a jàq ak lu waaye mos a jaaxle soo ñëwee ci moom loola yàlla dana ko faj ndax lan ndax ragal yàlla ndax lan ngar bokk ak ñu baax ñëpp ndax wax nañ ko waxati ko kan mooy alaaji Mbàkke Tànjang kan mooy waajuram soxna Yacine Tandiang soxna Yacine Tandiang man mi nga xam ne nag ku wax maam maaram wax maam Mor Anta Sali xam nga ne ñoo bokkul lépp maam Mor Anta Sali meñ sëñ Bamba Xaadim Rasul soxna Yacine Tandiang meññ maam Mbacke Tandiang di Alaaji Mbacke Tandiang yàlla yàlla fayal ñu ko waaye noonu la bokk ak maam Alaaji Malick waaye tey nag li ñu fi andi nag ah bii nga xam ne wax nañu ko bi jàng jote jàng na waaye am yar am teggin am kilifa am nag ndey ju baax ndax mbir mi ndey ju baax ca la ñu ngi nuyu nag waajuram bi soxna Sala géy mu baax mi ak rakkam ju baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu bokki penc mi waaye nag sëriñ bi tey war ngaa am loo baaxee réew mi jàngi nga ba ñëw toog nga ci sa ëttu maam toog nga ci sa ëttu waajur déggal sa waajur nag liggéey fi liggéey boo xamante doodu fay ba àllaa yow mi diini ndax dafa am kilifa ndax am kilifa nag mooy li am solo soxna sala sal waajur am na kilifa waaye nag sa waajur it liggéeyal na lislaam moo tax ba nga jàngee ba ñëw am nga nag loo war a baaxee jullit yi war leen a dimbale ndax kat sa maam da daan dimbalee te nag mag sa maam daan na wax ne woo ko moo tax ku mos a ñëw ci moom mu dimbale la jàngi nga ba ñëw nag noo nag loolu nag war nga ñu cee dimbale ak nooy dimbalee julit yi ak doomu adama yi kon sëñ Ababacar Tandiang kàddu gaa ngi bismillahi rahmaani rahimi allahuma laka alhamdu kama yambagi li jalaali wajhika wa azimi sultaanika anta ahlul majdi wa thana xaqu ma qaala bihi al laka alhamdu allahuma fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hamdan bila bidaya wa shukran bila nihaya li maliki lmulki alladi adhara alxaqaiqa alkawniya waaye wa zayyanaha bi tajalliyati almuxtalifa wasalaatu wasalaamu ala nabiyi rahmati lkulli wa sirri lkulli wa nuuri lkulli aljaamici alkulliyati bil asmaai wa sifaati almaxsuusi bi maa lam yuxassa bihi gayruhu aynu man tajalla jamaalu zaatu diin sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu an xutbil akbari barzaqil baraziqi imaami aimmatil mujtahidin man jamaa bayna sarafil dursumati wa diin wa sharafil ilmi wal amali wal yaqin mawlana cheikh sayid ahmed tijani mbokki àdduna Euh, mbokki njaareem ak li ko wër waaye mbokki Madina Tànjan ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen balu xaq waaye di leen bal xaq di ñaan ci yàlla yàlla nañu yàlla boole defal yiwam bi xurmat seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam euh, ñi ngi jiital ci suñu nuyoo ak suñu ziyaara suñu baay suñu woyjur Sëriñ Omar Tandiang di ñaan ci yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér bi barakati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom bi nga xam ne dëgg-dëgg kenn ku nekk ci ñun damay wax ne wàccoo na ak ñun waaw wax dëgg yàlla ndax it nit bu fexee ba nga denc ci réer wàccoo na yow waaw après nag mission bu mu mën a jël teg ko sa kaw mission bu mu mën a jël teg ko sa kaw fekk na am na lu ko jiitu loo xamante ne ni bu ñëwee dina ko téye dëgg-dëgg kon wàccoo ak ñun ñu ngi koy ñaanal ci yàlla yàlla ko fi yàlla gën a bàyyi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér bi xormat seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam daara jaa ngi nii jumaa jaa ngi nii kenn ku ci nekk gis na yitte bi nga xamante ne ni moo ci moo ci nekk itam gis nañu liggéey bi fi mu toll ah, wax dëgg yàlla eh, lépp itam wax dëgg yàlla mu ñu teg ko rek ci mission bi nga xamante ne ni moom la fi góor gi bàyyi woon di suñu maam alxaaji Mbàkke Tànjaan radiallahu taala anhu yaa ngi koy wax léegi ci sa biir yi wax góor gi mission lenn la woon mooy di wër ci àdduna bi foo xamante ne nii diine yeggagu fa mu fexe mu yegg fa loolu moo war warloon yoonu màkkaam yu bari yi bi ci jiitu mooy nit la woon koo xamante ne ni dafa amoon cofeel ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bii nag dëgg-dëgg am na sa cofeel fu muy dem ba toll ci moom euh, doo mun lu rek dem fekk ko ba fa mu tëdd ca barabam ba muy maala aji Mbàkke Tànjang radiyallahu taala anhu waaw juróom juróom ñeenti yoonam yëpp loolu moo ko waraloon waaye nag ci biir juróom-ñeenti yoon yi li taxoon dem bi ak dikk bi li ko ci ëppaloon solo ndax xaj màkka bu ñu fàtte ne benn bi mooy farata i des yëpp ay sunna la ci kaw nag nga mën ko te yàlla wërsëgal la noo dem noo noo fa demee wërsëg gi nag mën na nekk nga jaar bato mën na nekk nga jël avion mën na nekk sax nga sa tànk ba yegg fa waaw ndax yàlla mooy wër sa gëlal jaam loo xamante ni wërsëgalee wu ko keneen loolu yàlla dogal ci doomu adama su ko defee moom góor gi mission yëpp diine la woon ak tarixa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bi mu bokk waaw waaye laataa tarixa bi sax mission li ci ëppoon solo mooy diine waaw fexe woon nan nan nan lay def rek ba tasaari diine waaw loolu itam moom la ñu dond ci moom mooy mooy mooy ci li nga xamante ni moom la ñu nàmpatal ñu nekk ci itam boobu ba léegi bàyyiwuñu booba léegi ci li nga xamante ne nii tracé bi nga xamante ne nii moom la ñu moom moom la ñu tegoon ci la ñu ne waaye itam ñàkku ñoo jik wax dëgg yàlla waaw ndaxte luy tedd ngay doomu aadama ñu fekk fii loolu loolu moom mooy li nga xamante ne ni moo wér loolu la yàlla dogal itam wax dëgg yàlla ah fu fu fu ne itam du jige ci àdduna bi di am loo xamante ne nii mi ngi koy soxla ak di ko taataan ak di ñëw ba fii wax dëgg yàlla di ko fi di ko fi di ko fi rotaan si ak di ko fi taataan si itam wax dëgg yàlla yàlla itam di def di def di def wax dëgg yàlla noonu mu jaadoo te yella itam mu koy dogalee noonu ndax it bu ñu fàtte ne lu mën di am ci àdduna yàlla moo ko dogal waaw yàlla nee na man yàlla ngëneel ci sama loxo la nekk wa anna al fadla bi yadillaahi yutihi man yashaau yàlla nee na ngëneel ci sama loxo la nekk man yàlla maa koy jël itam jox ko jaam bu ma neex loolu mooy loolu mooy li ci nekk su ko defee itam mbooloo mi itam gis ngeen du mbooloom kenn ku dul mbooloo maam alxaaji Bakke Tanjeng radiallahu taala anhu kenn ku ci nekk moom ngay noyyee ginnaaw ba sëtam bu baax ba euh, ginnaaw ba sëtam bu baax ba sanceeb dëkk euh, di suñu bàyyi sëriñ aji Mouhamed Tanjeng te ci biir sanc bi itam dama koy wax ma ne li taxoon mu sanc dëkk doonul woon lenn lu dul fu mu rawalee diineem ak itam fu mu rawalee diine njaboot gi dëgg yàlla fu mu rawalee diineem ak fu mu rawalee diine njaboot gi loolu moo loolu moo doonoon xillam mu sancib dëkk waaw te li fi li fi li fi mag ñëpp def moom la def ndax boo xoolee ci taarix ci l'histoire ci li nga xamante ne nii moo am fii ci Sénégal euh, mag ñi fi sanc dëkk bariwul de mag ñi fi mag ñi fi sanc dëkk bariwul moo tax maamam ci mission ba nga xamante ne ni ci la nekkoon mooy di dox di wër ak di tuubal nit ñi ba tal woon sanc dëkk moom la ko yàlla fayee ci ab sëtam mi sëriñ aji Mouhamed Tandiang daf doon wax mu ne li nga xamante ni moom la ko yàlla dénk ci ay njaboot parce que moom nanguwul woon baatu taalibe waaw moom daf doon wax ku ñëw rek mu ne njaboot la waaw li ko yàlla dénkoon ci ay njaboot ma ci ñi nga xamante ni jigéen la ñu woon moom mu jural leen boppam daf doon wax mu ne ñoom du ñu am kër ci dëkk bi parce que ñoom ñaan yàlla ñu am ay boroomi kër ñoo ñu ñu ñu ñu dem sëyi ah kon mu ne woon ñooñu du ñu am waaye li nga xamante ne nii moo ci wér te jaadu te wér mooy képp koo xamante ni njabootam nga moo xam nga sant tànjang moo xam nga bañ a sant tànjang fexe woon na ba numéro que jamono tey toll na foo naa góor gi maalaaji Moodu tànjang daf ko daan wax daf doon wax mu ne jamono toll na foo xamante ne nii képp koo xamante ne nii am nga loo xamante ne nii lu loo gëm la te muy pas-pas te muy lu wér jël ko nga dugal ko ca sa suufu bëñ ba mujj nga képp ko bu dëgër waaw parce que liy fëkke léegi ci jamono ji moo bari te dafa bëri luy nuru diine te diine waaw dafa bëri ci jamono ji ñoo xamante ni yor nañu mbooloo di woote di woote woote loo xamante ni lu nuru diine la waaye du diine diine dara ëpp ci solo loolu alquranul karim comme ni ko xale yi di defee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna dafa dajale saxaaba yi ba ñoom ñëpp ñu dajaloo mooy leen maa ngi dem de maa ngi leen fiy bàyyi waaye li nga xamante ne nii moom laa fi ba man yonent yàlla Muhammad polémique bi bëri woon na ci ginnaawam lool waaye li ci wér ta nga xam ne moom la fi ba mooy kitaaballahi wa sunnati nee na maa ngi dem waaye li ma leen fii bàyyil yéen samaw yéen samaw xeet yéen samaw askan mooy téere yàlla bi ak sama sunna te sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir alquran ci la jóge ndax yonent bi amul benn sunna boo xamante ne nii nit ñi ñi ngi koy roy te nekkul ne ci biir alquranul karim ci lañ ko lay taayee léegi nag dem nañ ba toll foo xamante ne ni ci jamono ni nit ñi di xeexee daara dafa ëpp loolu kenn xamul lan la da ngay yaakaar ne sax nit ñi xanaa dañoo buggatul lu baax ci ndax ci xeetu méthode bi nga xamante ne nii ci lañu nekk di ko jéem a xeexee daara ah te li ci nekk mooy euh, ku nekk ci àdduna yàlla moo la ëpp doole te yàlla nee na alquran gi man maa ko wàcce waaye maa koy sàmm waaw inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizun waaw dafa mel ni ku jàq dem ci daara. moo wér. ku yàq dem ci daara. loolu moo wér nijaay maam ku mos a jàq ñëw ci moom mu saafara ko ku sa bët mos a xong nga dem ci alaaji Mbàkke wala nga ñëw ci alaaji Moodu mu saafara ko wala nga ñëw ci sëriñ aji Mohamed Tanja. loolu moo fi nekk ba léegi. ba loolu nag mu daan def eh, ca bàyyi la fi ñu lay ñaanal nga yàgg fi lool. amiin incha allah amiin ca ba ñëw. am loo doon ci sa maam am loo xamante da nga ko war a defaat ci lislaam defaat ko ci doomu aadama yi nga xam ne ku xam alaaji Mbàkke Tànjang xam nga ne ku mosa bëgg a takk ndombo tànk ci moom la gaawee képp koo xam da nga bëgg a takk ci mu gaaw lool ci moom képp koo xamante ni danga am lu la dal ak nu mu la dalee fu mu la dalee boo ñëwee ci alaaji Mbàkke Tànjang mu saafara ko ngay sët nag ci sët nag mooy donnu maamam loolu war nga ñu cee baaxee bu baax a baax. ndeysaan euh, loolu mooy li nga xamante ne nii moo wér. te it njeexital googu nga xam ne ba ci njaarim gi ñu dëkk ki ñuy wax yéen li maneel Fall doonoon fi buur góor gi Alaaji Mbàkke Tànjang moo ko tegoon place bi mu nekk waaw bi bi ci li nga xamante ni moom la ñëpp dëkkoo moom la ñëpp dëppoo mooy góor gi yéen li maneel Fall buur la woon fii ci njaareem taalibeeb Alaaji Mbàkke Tànjang la woon ci bu gudd lool ba muy dem foofu tamaam Seydal Xaaji Malik bu Tiwaawan moo ko joxoñ góor gi moo ne ko fal ak folli moom kenn rek la ko yàlla jox ci jamono ji mooy alaaji Mbàkke Tànjang gis nga mag ñi dañoo rafetal ba xëy génn àdduna njaboot gi ñoo fi nekk rek léegi am am benn phénomène bu xew muy ko toog ci internet rek yaa ngi jéem a ŋàññi la sa moroom ne te wala ayaasu billah loolu gënul ndaxte li ñu boole mooy diine ji nañu ko bàyyi xel dafa ëpp doole tariixa bi waaw diine ji moo ñu boole te dafa ëpp doole tariixa bi waaw waaye alquranul karim wax dëgg yàlla euh, mooy li fi nekk ci li ci li nga xamante ne nii loolu moo wér loolu mooy loolu mooy kàddu dëgg alquranul karim mooy li fi nekk maa ngi lay wax sànq ne la si yàlla Muhammad moom la fi bàyyi woon te gis nga ku mën di doon ci àdduna bis boo jàqee ba jàq ga amago amatoo ci dayoo ci biir alquranul karim nga jëm si boo juddoo taalibe la ñuy woo mooy ñëw toog jàng alquranul karim boo génnee àdduna taalibe la ñuy woo mooy mooy mooy taxaw jullee la ñaanal la yàlla loolu moom loolu moom mooy li wér waaw taalibe yii yii yii dama ne Sénégal taalibe yii nañu bàyyiwaat ci seen ci ñoom xel te gis nga yonent bi nee na chaque jour yàlla gis ci àdduna bi ñaaw ñaawteef yoo xamante ni doomu aadama yi ñu ngi koy def mu mu mu waroon cee jaare pour tukkal àdduna mais nee na bu xoolee xale yu tuuti yi nga xam ne amaguñu bàkkaar jël téereem bi di ko jàng nee na ñeewanteel bi muy am ci ñoom mooy mooy mooy mooy tax mu fomm mbugal wa nee na wala wala wala mag ñi nga xamante ni dem nañu ba yegg ci at foo xamante ne nii euh, mage nañu waaye fu fajar jotee ñu dagg seen ay nelaw di njut njuti ngir ngir wéetal seen borom ak ci dem ci jumaa yi ji julli ji bis bu nekk nag nit ñi def ci ñaawteef xeetu yonent yàlla muhammad dañu xamul ne li ñu am dafa am doole kan lañu ñu am mooy yonent yàlla muhammad te yonent bi moom la ñu yàlla rusee ñun ñëpp gis nga ay jamono fekk deme woon ci jumaa wala ci jàkk boo jullee amoo julli yonent bi nag bi mu ñëwee yàlla def na ko suuf si yëpp def naa ko mu laab ngir sa xeet fu waay taxaw mën na julli te it loolu itamit laa xarwa wax dëgg yàlla ndaxte yàlla nee na binduma dara ngir sama bopp lu ma bind yonent yàlla muhammad moo tax waaw te yonent yàlla muhammad itam wax dëgg yàlla dañuy wax ci ci ci ci wàllu ci wàllu ci wàllu ñaan yonent bi am na doomam bu ñuy wax faatima bi mu wax rek daara ji ak jumaa ji ngir nit ñi gën ko bàyyi xel ndaxte wax dëgg yàlla euh, dëkk bi ku ne dugg na fi ngir di ut loo xamante ne nii moom ngay am. waaw ku ne dugg na fi. loolu mat naa ci seede. ndax di ñaanal njiitu réew mi président Macky sàll ba muy réew mi 2011. fii la ñëwoon fekk fi sëñ Omar Tandian. maa ci àndan. soxna su suñuy wax soxna Maguette Tall nekkan fi député. ci la bokkan ak Moustapha yi Lo ak ministre daam Diop mii tey tey nga xam ne yàlla def na ko ministre ak ki nga xam ne mooy docteur Souleymane Soumaré ak ki nga xam ne nag mooy monsieur ministre moor Ngom kon nag président dëkk baa ngi boobee ñu ñëwee fee lañ fekk sëñ Omar Tandiang boobee guddi na lool ay sonde la ñu taal boobu penc mi tollul nii melul nii waaye ku fi ñëw tey da nga xam ne nag dëkk bu yàlla borom yàlla gërëm na borom dëkk bi kon nag jumaa jaa ngi jàkka jaa ngi soxna Mariam fay sàll social ngay yëngatu dëkk bi ku ko bàyyi xel yàlla bàyyi na ko xel waaye dool leen ko bàyyi xel doole bàyyi xel kër gi sëñ bi jërëjëf euh, loolu moom euh, lu ñu lu lu lu am ci dëkk bi la nit du fi ñëw di ñaan si mukk loo xamante ne ni fas nga ko sa biir xol gëm ko te newal ne yàlla sottil na ko te gis nga fi mu ne lu mat a bàyyi xel la ku mokkal ab faatixa sax fi mu ne waratoo ko ba ci ñaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na adduaau silaaul mumin ñaan mooy ngànnaayul jullit gëmman nafaa ñaan su su su matalee rek jariñ kon nañu teyit wax dëgg yàlla heure bu ñu jàngee kaamil fii ci dëkk bi euh, euh, bu bu weesoo ñi nga xamante ne nii yàlla boole nañu ak ñoom wax dëgg yàlla yéene nañu ci yéene nañu ci dëkk bi yëpp yéene nañu ci senegal yëpp yéene nañu ci àdduna bi yëpp ngir yàlla wàcce fi jàmm wàcce fi sutura wàcce fi naataange wàcce fi barke ndax loolu itam wax dëgg yàlla ci la ñu ci ci la ñu tarbiya ci la ñu nàmpatal ba ñu toll nii ñu toll loolu moom mooy li waaw sëriñ bi ba tey fi ma bëgg rek nga dugg fi mooy ku xam sëtub Alaaji Mbàkke Tànjang ah doo ko nangoo wax ndax danga am kilifa. moo tax doo ko nangoo wax waaye am na lu fi sa maam bàyyi koo xamee ku bëgg a jariñu wala ku bëgg ku nu dimbale bu ñëwee ci yow ci kàttanug yàlla euh, nga nga ñaanal ko na sa maam daan def loolu sëriñ bi boobu buntu damaa bëgg nga dugg ci. incha allahu taala euh, jamono mooy dox waaye dafa tolloog nit ku nekk wax dëgg yàlla war nga mën a ñaanal sa bopp waaye nag am na ci secret yoo xamante ne nii moom ña ko gëstu rek ñoo ko xam. moo tax léeg-léeg damay dégg nit di wax dara ne loolu mënul mënul mënul nekk moo tax am na ñu bari ñoo xamante ne ni war nañu ba weddi waaw weddi waaw ponk ponk la ci kufru waaw weddi bu ëpp baaxul waaw li wér wóor mooy ak soxla bu bu bu nit mën di am ginnaaw bu yàlla jàllee waaw ak ak ak ci loo mën di yëngu bu ñu ci bu ñu ci bu ñu ci yëngatoo ak yow wax dëgg yàlla soxal sedd ah tey tey na nga ko bëggee mu sottee noonu incha allah taala loolu moom dëgg-dëgg du mbir moo xamante ne nii sax euh, tax na ñoo jug wala itam ñu toog di ci yaatal wala yu demee noonu waaye daal li ci nekk mooy euh, fa ñu mag ña tegoon ñanga nga fa ba léegi la ñu mag ña santoon ña nga fa ba léegi waaw te la mag ña yoroon itam am na loo rogalaat ba egsi si ñun waaw am na am na am na loo xamante ne nii rogalaat na ba egsi si ñun loolu mooy loolu mooy li nga xamante ne nii moo wér waaw su ko defee ñi ngi sant ah, ñi nga xamante ne nii ñoo jógee ba Ndakaaru ngir ñëwoon taataan pinc mi taataan xadara bi taataan jumaa ji taataan jàkka ji ah, yàlla defal leen yiw ah, yàlla defal leen barke ndaxte toll nañ ci jamono boo xamante ni kuy yëngu sa yëngu bu dut bu dut léppit la ci ëpp na doon diine waaw ndaxte mooy mujj nag waaw mooy mujj waaw su ko defee yàlla na mbir yëpp man bakki tanjaazu laalan kaana zuqyaawo man bakki qad jallat atayaawu من أكرم الشيق هذا ثم أحلاه الحاج مبكة تنجن بسرا لنا مخسر الإخوان عند لنا من ربنا أسوة آكم بممساو سرين بابا كرتان سمام سيخا تقيا عظيما ناسكا ندبا بل آبدا مقبتا أزد مضايا الحاج مبكى تنجن سيقا أصوفا عن الدنيا وزينتها رغبا لدرتها ما الخير الحاو سنو مبكى تنجن منح جيدة مرات لقالقي غرغة سيسين بيت الأرام الذي ما زال يأوى سنو غرغة بدر حوالك بل سمس الإداية بل آبد أباتي إلى مرضات مولاه jërëjëf mbokki jullit yi mbokki réew mi ñuy seetaan mbokki bitim réew su ngeen déggee loolu nag xam nga ne ñu ngi jëm ci guddi gu mag guddi gi nga xam ne mooy guddi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di am fan nag <laughs> di am nag fii fi njaareem nag kan nag moo ko woote nag ah sëriñ Omar Tandiang di woote nag ci turu xalifa bi waaye di woote ci turu l'islam bi yëpp di woo képp koo xamee taalube la képp koo xamee soppe nga képp koo xamee dëkkandoo nga képp kuy déglu sunu kàddu di nu seetaan ci réew mi ak bitim réew sëñ Omar Tandian nee na mi ngi woote nag bis bi nga xam ne nag mooy guddik yonti yàlla Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag daal sëñ Omar woote na fi njaareem mi ngi woo ñëpp bawul kenn bawul fenn bawul ñenn guddik yonte bi nag kuñ ci woo aa war ngaa daw dawa dawa daw loo am def ca ndax Rasulullahi sallallahu alayhi ku nu bind moo tax lu fi waay am nag ci moom nga ko amee lamp boo gis mu leer fu mu mën a leere nag yonte bee ko leeral sang ba ca madinatu munawara kon nag borom madinatu rasulu ah tànjang nee na nag mi ngi woo ñëpp kooku mooy kan kooku mooy sëriñ Omar tànjang waaye nag di gërëm nag doomam ju baax ji sëñ Babacar tànjang sëñ Babacar tànjang yàlla yàlla guddal sa fan yàlla yàlla wéral sa cër ndax nag nii la sët di def nii la doom di def topp ay waajuram jàngi ba dellu siwaat di dimbale jaam ñi nag waaye nag sëñ Babacar tànjang it nee na mi ngi woote ci turu waajuram yi di sëñ Omar ñu ngi woo ñëpp njaareem la gàmm la sëñ Omar Tandiang mi ngi woo ñëpp jërëjëf fa merci subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alazizu alxakim radiallahu asxaaba annabiyi faqad laaqu kulla mararatin xarra li yasila dinullah illa kullu buqaatin wa arwaax mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu fii ci mu tedd Euh, di jiital ci suñu nuyoo ak suñu ziyaara euh, suñu baay Serigne euh, Omar Tandiang yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di wax ni moom day joxe na ndigal ci képp kuy njaboot ci kër gi kan yi incha allahu taala dina gàmm fii ci kër maamam kër maam Alaaji Mbàkke Tandiang suñu baay Serigne Omar Tandiang jundiyul Qur'an nee na lu mu am yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax moo tax ba mu demee ba ca. Euh, ca ca moom dafa daam yu am solo yooyu dëgg yàlla nee na mi ngi woo adduna yëpp ci guddig yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ni mu am ñëpp mi ngi leen di woo di leen xamal ne moom joxe na ndigal te dina gàmm incha allahu taala waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu